salaamaaleykum mbokk yi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk ñu topp ci biir ak ci bitim réew noo ngi fii ci Touba euh, xam ngeen ne euh, ñaareelu mbale mi nga xamante ni bii gannaaw gàmmu moom la njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall di amal fii ci dëkk bu sell bii di Touba. Euh, ci ndigalal Cheikh Mouhamadou taxa muy bu ñu gàmmoo ba noppi seetal dëkku Serigne Touba bi gannaaw màggalu Touba waaye gannaaw gàmmu nu def ko nañ ko defe woon rek suñuy waajal màggal ngir buñ gàmmoo ba noppi. Euh, mbalit mi nga xam ne moo fi desoon euh, rawatina nag euh, màggal gi tam xam ngeen ne jaaykat yeeg gan yeeg yooyu mbalit yëpp la ñuy fas bu buñ gàmmoo ba noppi desuwaat ci mbalem Touba waaye ñu di ko nag at mu jot ci gannaaw màggaluk guddi ngërëmul maam Cheikh Ibrahima Fall loolu nga xam ne Serigne Bassirou moo ngi amal suñ ko màggale ba ca gannaaw suba ga ñu daal di songaat mbalem Touba mi ngir seeta dëkku sëñ Touba bi waaye mbalem li ci gën a doy kéemtaan rek mooy dafa am roq yoo xam ne nag roq yooyu moom fenn mérite ni ñoom benn mooy marché Ocass bi ñaareel bi mooy gaar bi foofu dafay mbalit moo xamante ne bii saa buñ ci egsee rek faaw des na fa def ay fan wala ñu def ay waxtu yu bëree bëree bëri loolu nag du ñàkk xëy na jëwrin yi ñu taxawal danañu ci gën a mën a indil ay leeral wala ñu gën cee mën a indi seen i xalaat ngir nan la ñuy def ba euh, diggante marché bi ak gaar bi li fi nekk ci mbalit dafay bëri trop trop trop dafay mel ne nag euh, dëkku sëñ Tuubaa bi euh, seetal ko damaa jàpp ne kenn waru ceexaar kenn daal waaw ndax loo xam ne loo ci seetal seetal ko ci say bàkkaar maa ngi fàttaliku bis boo xam ne sëriñ Moutaram Sëñ Abdou Lahad Euh, mi nga xam ni mooy defar jullikaay bii ñu ànd soxna maam Issa Mbacke koroog bi nga xamante ni sama borom dogal na egsi nañ foofu soxna yi bale ba lay lu wër jumaa ji soxna maam Issa ne ko murid yi dama ànd ak ñoom di soññ di leen soññ ñuy bale jumaa ji li ko wër di ko lay mu ne moom de fekk na Sëñ Abdou Lahad génn fekk soxna yi bale bay lay lu wër jumaa ji Sëñ Abdou Lahad na leen yéen ñii di lay rek Sëñ Tuubaa bi kenn kenn ci lay ëllë yomal xiyam loolu nag moo egsi ci dëkk bii ci Touba kon loolu moom nit ñi war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax euh, Baye Ibrahima Dia euh, yaa ngi ci waar wi ànd ak Serigne Fallou Fall euh, jëwriñu Serigne Modou Aminta euh, jàkkaarloo caméra bi borom caméra bi nee na nga nga moom de lan nga ñuy indi ay kàddu ci mbale mi tey setal dëkku Serigne Touba bi bay Fall yi xëyee day mel na nag bay Fall yi rek a génn nag ndax man wax dëgg wër naa boobaay léegi waaye Baye Fall rek lay gis eh, di xam ne nag tey jii fii nga nu fekk tey jii yaa nga nu fekk ci marché bi ñaan gaar gaar ba fi nga nu fekk waaye nu bàyyi suñu jëwriñ nag Cheikh Moustapha Falilou ca rond-point ba nga xam ne naka njëkk mooy gindi taalibe yi mooy yónnee camion yi ak lépp loo xam soxla woon nañ ko loolu Cheikh Moussa moom it da koy yónnee jëwriñam jii di sëñ Fallou sëñ Fallou nag saa borom yàlla dool dina ko dimbali lool ndax gaar bi moom daa dañ ko fa féetalee ndax njóobentaay xam nga tolloon na jamono yoo xam daanaka lu mat gàtt-gàtt ñaari waxtu dana ko fa lu mat ñaar fukki camion dana fa ci biir marché bi loolu nag soo gisee sëñ bi dàkk biir marché yi xam nga daanaka marchandise yëpp indi ko xam ne gii xet googu yaakaar naa kenn ko mën a jëriñoo loolu nag moo tax suñ fàllu jëriñ ji saa su nekk bu ñëw fii ci marché bi rek faw dana fi am ab diir boo xam ne bi dana ànd ak mbooloo day wax leen ma foofu xam ne mbalit nag fa ko wëri te génnee ko camion yaa taxaw waaye oto yi ndaw yaa ngi taxaw wër leen fu ngeen gis daal ngeen génnee ko waaye loolu kon noo ngi sant di ko ñaan sama yàlla baax a baax di baax mi ndax wax dëgg yàlla soññu na taalibe yi ndax am na kàddu yu muy wax yoo xam ne saa su ne ku ko dégg war ngaa jéem a góorgóorlu ku dem ma dem ku demul ma dem waaye lii may wax kat ñi bëgg a baax rek laay waxanteel kon ñi bëgg a baax ñoo war a góorgóorlu eh, àndanteeg ñun ñëpp nu bokk liggéey Sëñ Tuubaa waaye xam naa ne dafa am jëw yi joo xam ne ji nag xam naa ne faaw dama lay bàyyi ak moom sëñ Modou Mbenda Badiane ñëpp gën ko xam eh, ci jàpp jaan ak defar jaan ak lépp kenn ko ci nga xam bokk ci waa kër moo Modou Mbenda te kër Cheikh la Fall yi nekk fukki kër yi ak benn di Baye Fall ñoom ñëpp ñoo bokk ñëw ci mbale mi loolu yaakaar naa ne boo noppee nga jox ay lam xëy na dañ seetaan ne kat ñoom Eh, tubarkalla jërëjëf eh, eh, Baye Ibrahima jëf ci kàddu yi am solo yi sama nijaay sëñ ban yëg-yëg nga am tey ci Baye yi génn nañ ñu njabootu képp ngir seetal dëkku sëñ Touba liggéey bi moom liñ ci yëg bare waaw waaye nag mbiram Cheikh rek ndax dëkk boo xamante ni ku ne xam na ne Cheikh moo ko gor kon barab boo ko goree su fekkee dañ koo tilimal sa njaboot ñoo ko war a setal kon saa su ne fu sëñ bi wootee ab liggéey rawatina moom màggal gi jublu wala muñ màggalee ba noppi buñ ko waree seetal njabootu Cheikh Fall ñoo ciy ne ndax ñoom la war ndax ñoom barab bi Cheikh bi daan wax na ah doom Touba du dëkkuwaay Touba barab bu ñuy jaamoo yàlla la Touba du dëkkuwaay daan na doom na boo demee ba munoo ñàkk dëkk tuubaa nag soo bëggee tuur ndox wala nga tuur bëgg a tuur dugub nga dem ba ginnaaw kàddu baalu ji loola mooy seetal Touba moo war ñëpp sëñ Sidi Mokhtar mas na maa wax ci làmmiñam yàlla yàlla yokk ay leeram Modou Mbène mu ne ko faal mu ma yéen a ngi ci liggéey bi yéen ci mbale mi ñu ne ko waaw mu ne ah sëñ Abdou Lahad mos na ko wax ne ko te bu magal suñ tubaab yi jub képp kuy ba ah, laabal dëkkam bi ku koy setal suñu borom setal say bàkkaar kon loola suñ suñ yaay ju baax ji suñu soofal falilu ñu gën koo xam suñu soir mbar dafa wax ne mbalitan Tuuba wërsëgu lew la kon nga xam ne kon ñi ciy sonn na nga xam ne seen bopp la ñuy defal seen bopp la defal waaye nag eh, dafay loo xam ne warteef la ci Baay Faal yi barab bi mag ñi wax nañ ne bi sëñ Tuubaa yebalee ñu fi ñu ñu fi yebaloon ci njëlbéen euh, suñ ma roq bu saak sëñ Samba ak ñu ak sëñ Amtus Jaxate ak ñu àndal leen wax na leen nekkal leen sama dëkk boobee te képp koo xam te ni euh, sama mbedd mbedd dëkk boobu mbedd Tuubaa miin la la sa yaar du ko aj sa yaar sa jaamu yàlla sa aajo du ma ko aj sa jaamu yàlla sa teraange àddina ak ko teg sa ñaq nga xam ne kon euh, Tuubaa moom lii rek moo ci war moo fi war nun Baay Faal ndigal dong la ñuy jëfee ñun amuñu bis amuñu waxtu ndigal dong lañuy ñuy jëfee ba ñuy bind ba ñu moom di bind sëñ Tuubaa taxoon mu binduñ ndax loolu sëñ Musaa Ka wax na ko ca ca ca njëbbal ak serafal ga kon ñun alali sëñ Tuubaa lañ kon fu sëñ Tuubaa soxlaa rek dañoo bare dagg suñu yitte suñu ndigal lii jàlleet ñoo ngi xaaraat leneen ndigal incha allah waaw loolu daal mooy suñu yëg-yëg di soññ suñu bopp di soññ Baay Faal yëpp. Ah, xanaa suñu maamu de kon euh, li li nga xam ne moo ci suñu yëg-yëg mooy euh, xanaa daal di delluwaat cosaan xam nga Cheikh Ibra Fall moom moo moom setal barabub Serigne bu mu mën a doon fu Serigne Touba masaamu barab Cheikh Fall koy moo koy setal moom. Ah, ndax daa mel ni bokk na ci li lëkkalee mu tàmbale ko liggéeyam ci diggante ak Serigne mooy ba ko fekkee Mbàkke Kajoor lam fa njëkk a def mooy buub buub moom am ko moom ab cërëma képp ku koy def ci barabub Serigne Touba moom nga koy defal lool lool loolu lañ ci am ci yëg-yëg boobu ko joxe Baye Fall yi Touba dëkku Sëñ Touba bii ñu yëkkati li nga xamante ne moo koy saral teg ko ci loxol Serigne Cheikh Jëmb Fall mi nga xam ne moo fi taxawee. naam am na ci loo xam ne nan mat naa bàyyi xel ndax dëkki Touba maanaam tawféex la xaas la du ko jóg am ko waaye nag nga dëkkee ko ba noppi nag Serigne bi digle nii nañ ko saral maanaam saral googee nga xëy dem defi leneen nee na loolu gàkk xol la gàkk xol nee na xol bu xol bu xol bu xol bu xol bu xol bu gàkk la te xol bu gàkk nag wal iyaazu billaahi na ci yàlla musal nga xam ne ay murit yi jóge feew feew ndox ndakaaroog Kaolack ak fu ne murit dafa bàyyi ko di dikk ci dëkku borom Tuubaa bi ngir am pas-pasu ñu laabal dëkk bi yow nga dëkkee dëkk bi kon nag kenn waru laa jiitu ca loolu kon mun waa bi nañ leen farluwaat te bàyyi waat xel dëkk bi maanaam lu mu man maanaam di ko laabal biir ak biti ñu góorgóorlu suñ kem kattan daa daa daa mel ni sax lii nuy jox njabootu Cheikh Rafal muy nu sunu ñun ñun ñii nuy ñëw dina ko seralal day ñun ñii day kenn waruñu caa jiitu kenn waruñu kenn waruñu caa man ñun ñi nga xam ne noo faree Tuubaa kon nag noo ngi ñaan dëkk bépp nañ leen bàyyiwaat xel maanaam laabal barab bi te ji góorgóorluwaat te te te tey sooy bàyyiwaat ko xel lu ñu man suñ kam kattan suñ lu ñu man ak lu ñu mënut ñu def ko ci ci dëkk bi ngir maanaam mu dëppoo bëggu sëriñ bi ci lim bëgg mu mel ni ko ci ak laab kon noo ngi nuyu ñëpp tey balo xaq ñëpp tey jégalu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa baraka. Eh, jërëjëf eh, jërëjëf eh, sëñ Saliou Lam jërëjëf sëñ Modou Mbène Badiane sama nijaay jërëjëf Baye Ibrahima Dia di fàttali ne kon tey mooy ñaareelu fanu mbale mi ndax démb. Euh, ci dimanche ji lañ tàmbali woon. Euh, tey jii di altine di ñaareelu fan. Euh, lépp nag ci gannaaw gàmm gi nga xamante ne bii mooy gàmm gi nga xamante ne bii def amal nañ ko ca Thiès muy guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. fa lañ ko njëkk a soññee xamal na ne ne su bisub seex ba suufa alxuraan bi jàllee. muy fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmm. tombé woon nag defe naa ne alxames ji jàll. tey jii ñu fas yéene rek incha allahu wala boog àllarba ji jàll la woon. Mm-hmm. tey jii ñu fas yéene incha ngir rek euh, yeggale li des ci mbali mi comme démb lañ tàmbali. Euh, xam naa nag mel na ne sori na sax nag. Euh, sori na waaw ndax tey ñu ngi ci gaar bi. Mm. ñàkkul nag ñu ngi dégloo ba xam incha allah suba fan la ñuy xëyaat. Mm-hmm. wala nan la ñuy defaa loolu lépp ci ndigalal kilifa yi lay bàyyi ko. Mm. Baye Ibrahima Dia wala yow mën nga ñoo wax fu waar wi toll. waaw waar wi de yow bokk nga ci soññee ci murid yi. waar moom moo ngi ci ndigal rek ci ndigal rek la ñuy déglu. Mm-hmm. xam nga dañoo am jëwriñ ju ñu jiite joo Eh, saa si saa su nekk moom day wax ne man mbàkke mbàkke la waaye Baye Fall laa kon daanaka moom moo nekk ci bopp waar bi waaye mi yebal na ay délégation yu bari yoo xam ne ñu ngi wër foo xam ne fi mbali nekk na fa rek mu jotante ak sëñ Fallou Fall jëriñ ji su ko dee moom lu fekk fa waxtu waa xam ne nag eh, yàlla dogal na lépp lépp na nag mën nañ daje barab sàngam su boobaa nag la ñu yeewee mbooloo mi yaar nag mu yebal Bass Abdou Khadir waaye laa léeg yebal boppam su ñu mën a jaajëfal mbooloo mi ñu dakkiwaat leneen ndax buñ jógee fii itam ndigal kon ka Cheikh Rafaal ñun yàkkamti wu jëmalu fenn ci sunu tool daal caasu ne ci ren ne di déglu baatu ndigal waxtu baatu ndigal bi ak si itam loolu daal ci nekkaat rek ci diggante boobu daal Mamour foofu la nekk. Euh, jërëjëf Baye Ibrahima Dia euh, ci kaddu yi di fàttali ne nag Baye di di euh, xam le ne dañoo tas ndax léegi laa jot ñoom murit Sëñ Aliou ñing ñoom ñu ne ñoom ña nga ca côté corniche ba jëm jàkki jóge Kébé ah, kon sëñ bi leen waaw yëpp dañoo tas waa ki sëñ Mourab Laye Fall Ndar Euh, la ko tàmbalee ci sëñ sëñ Talla Ablaye mu fi wutu sëñ Ablaye Fall Ndar euh, sëriñ Cheikh Bintu sëriñ ñoom sëñ Talla ña ngi jëwrin ñoom ñëpp itam ñi ngi ci côté Janatul Mahwa ci marché Janatul Mahwa bi euh, jàpp que ndax dañuy tàmbale ñoom ko sëñ Mour Ablaye wàcc noonu jëm ci marché Janatu bi wër jëm hôpital bi kon fàttali na rek waa kër sëñ Bassirou Fall Alxuraan itam ñoom it ñoom ñoo ngi tàmbalee foofu it waa kay wàcc si ñoom tam xayra mangoog waa kay mangoog ñoom itam dañuy tàmbalee sax ca Baye Fall ga fa nga xam fa la bis ba xewoon ca péncu maam Cheikh Ibrahima Fall wàcc Fall sëñ bu sàkk ñoom ñëpp ba ci sëñ Abdou Roxee ñu ngi ci paareen ak li ko wër euh, di fàttali kon Baye Fall dañoo tas fenn fu nekk équipe ña nga fa tàmbalee ngir ñu dajee incha allahu bu ci yàlla andee kon di sant bu baax a baax euh, sëñ Abdou Ndiaye mi newoon ci caméra bi sëñ Aline Badara Ndim ci taxawaay bu am solo bi euh, di fàttali ne daal incha allah nii lañ ko fas yéene setal dëkk sëñ Touba bi waaye di ñaan sunu borom tabaraka wa taala la sëñ Muntaxa waxoon nekk leen ci rek waaw te bu mu laal suuf waaye njabootu benn yoon ndax xam nañ ne Cheikh na Eh, liggéey leen baam ba ndax ku jàng loo gis xam ko waaye ku liggéey loo bëgg am ko waaw kay kon su ko defee ñu sax ci rek ba ba dàkk rek ba fekk sunu jàmbaar ji di maam Cheikh bi Fall Babi Mouridina eh, te itam jàpp naa ne itam eh, li lépp sot na ba noppi sëñ Saliou ah, lépp lépp sot na ba noppi waaw kay ma ngoog jërëjëf sant nañ bu baax a faw Cheikh Fall def ko kon lépp sot na alhamdulilah tubarkalla jërëjëf sant nañ bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu